waaw ah, day déranger day que ah waaw déranger parce que xëy na caractère bi la waaw et puis aussi man doxuma ci caaxaan daal maanaam doxuma ci caaxaan moo di man ci lu ma nekk rek dama koy dama koy liggéey def ko normal du ma wax lu dul dëgg duma dugg ci ay bureau di nettali sama liggéey lay ñëw def su ma paree génn naa dem waaw awma peut-être noonu lañ ma yare aw ma xarit waaw mën naa maslaa jàmm sant xëy na aussi loolu ça dérange peut-être xaw ma. Euh, dañoo gis ni que Khady ay dara ses débuts à la RTS on l'accusait que ni elle a sa promotion fulgurante elle l'a due à ses charmes est que que charme quoi. ñoo xadi ay dara genre comme tout jigéen dafa passer par la séduction pour mun a am certaines choses à la RTS. Mm, parce que jàngul métier bi te mm. yàggu ko ñoo am yenn promotion yi. yàlla mi ngi ñuy tiim ñu titulariser ko au. yàlla mi ngi ñuy tiim mm-hmm. man j'ai fait vingt cinq ans plus de vingt cinq ans à la RTS yaa ngi nekk femme publique fii Sénégal dangeen ma mës a dégg ci dara lu naka sa dul noonu ah man li may ñaq di ko lekk dama bëgg mu lew ma dama bëgg mu lew ma loolu ngay wax su amoon fii Sénégal dara du fi umpe. et on man su ma neexee yëkkati sama loxo ci kaw. ma nekkuma ci loolu doxuma ci loolu mosuma cee dox li ma def ba nekk journaliste dama koo ñaq dama ko mbapat dama jaar ci escalier def stage RTS yàgg fa nekk ci stage recruté wuñ ma Abdou Diouf sama cousin la yaayam ak sama yaay ñoo bokk sama yaay di tàntaam yaa may dégg bu baax mhm. kumba dem ak njuubatin seen yaay yi ñoo bokk ndey ak baay yaasin gay masaar tamsir gay masaar dama lay wax fu mu jóge Abdou juf resevoir ma booba mu ngi président de la république mu resevoir ma ma dem bureau ma ne ko soxlawuma xaalis soxlawuma dara lu dul nit ki li nga koy jox jën muy lekk tu nii laa li ma ko wax loolu laa lay répété nit ki li nga koy jox jën bis bu nekk muy lekk nga jàngal ma nu ñuy nappe jàngal ma ni muy nappe mooy dama nekk RTS yàgg fa ma bëggoon ñu dimbali ma ñu recruter ma mu ne ma waa baax na dégg naa li nga wax li nga wax ma génn bi ma génnee aide de camp sàll booba sàll moo fa nekk woowaat ma ni ma président nee na dina xool sa situation nu muy demee bi ma demee quelque temps après Gila on m'a appelé ni ma naa defar samay dossier jox Gila Thiam Gila Thiam moo ma embauché dama lay wax li am man jaaruma ci ay bureau ak ay fauteuil pour ñu embauché ma sama embauché noonu la demee te biñ may embauché agent de programme la woon RTS ñaata agent de programme ñoo xamante ni ñu demuñu école ñu def ñu embauché leen def leen agent de programme ñu nga fa sama recrutement noonu la demee RTS du temps de Gila Thiam